kii nag Ousmane Ousmane bu ñu ko waxee nga xam ni mu ngi nekk ci Dakar midi vraiment di fa liggéey liggéey bu am solo. ñëw na ci wasaare daanaka mun naa ni DG Dakar midi ak wasaare presque benn lañu. mu nekk loo xamante ne vraiment bi nga ñëwee wasaare nan nga ko gisee. ak trophée bi nga xamante ne jox nañ ko wasaare. ah waaw euh, trophée bi moom xam naa ne man nekkuma wasaare mais maa ci gën a kontaan sax waa wasaare. ndax dafa am particularité bu ma gis ci wasaare làmb. muy wasaare làmb. lépp luy jëm ci làmb ndax euh, site yu fiy def YouTube yu fi chaîne yu fiy def làmb bari na. mais man sincèrement li ma gis wasaare man gisuma ko si yeneen chaîne yi. parce que wasaare làmb. lépp lu jëm ci làmb amul bàyyiñu si dara mbër buy doog a commencé tey tey sax bu leen woowoon fii bët frontière senegal fu mu jeexee wasaara làmb dañ fay dem te dama ko seetlu ñoom bàyyi ñu mbappat bàyyi ñu seen yaa ngi fi mbër bu siwul duñ la jël euh, làmb bu amul ampleur duñ fa dem xam la man mi di wax ak yow seen laa mais làmb sax su ma fa demoon grand combat laay dugal sama yoon nekku ci li ci des du ma ko dugal. mais wasaare làmb lu mu ndaw ndaw lu mu mag mag wasaare du bàyyi dara. te wasaare cent mille yi cent mille abone yi ngay wax man gëm naa ne wasaare gisaguñ dara lii du dara cent mille abonnés pour man du dara si wasaare ak liggéey bi wasaare làmb di def cent mille abonnés sax dafa ndaw si wasaare làmb man gëm naa ne un million yi ngeen di wax sax bu soobee yàlla di ngeen ko romb. parce que man damay nekk fii wasaare. di gis waa wasaare ni ñuy liggéeyee. surtout ci làmb ji. waaw liggéey bi amul benn caaxaan. may gis fii ay reporteru làmb wasaare xëy fii huit di wër ci làmb ba zéro heure. te lépp ci làmb la ñuy dox bàyyi ñu làmb bàyyi ngeen traditionnel bàyyi wu dara ndax chaque jour ngeen voyager fii sama kanam. chaque jour ngeen voyagé fii sama kanam kon boog lii maa ngi ñaanal mu gën a yokk te man gëm naa ne day gën a yokk incha allahu rabbi waaw maa ngi ñaanal di ñaanal waa wasaare yëpp waaw kontaan naa ci waa wasaare parce que vraiment dama fi ñëw chaque jour mais gisuma fi dara dara dara lu ñaaw wala loo xam ne lu ñàkk fayda liggéey daal laa fi gis te su ma fi doon ñëw aussi gisuma fi liggéey du ma fi ñëwaat ku ma xam xam ku ma xam ma xam ma si loolu mais dama fi gis liggéey gis fi sérieux te cent mille abonnés yi bu soobee yàlla yàggatul dara bu soobee yàlla dina gën a law maa leen di ñaanal daal lii daal mu doon lii daal mu doon profit bu njëkk te mu doon yàlla bu mu doon bi mujj bu soobee yàlla